nit ki du ko fàtte da koy mën a wax am yoo xam ne euh, du ay message luy jaar di nit ki di jàll ndax ñu ñi firi gént ñëpp wala ñu ëpp ci ñi firi gént mbokkee yi dinañ leen laaj xeeti gént yoo xam ne yow boo ko déggee da nga xam ne effectivement lii du gént te ñoom du nangu na lii du gént te suñu yoon ba passé wax nañ fi gént mooy loo xam ne xalaatoo kooku bàyyi woo ko xel buggoo koo gént mu dikkal la tout le temps loolu day def taasiir mooy jeexital ci ki gént gént gi gént nag du guddi yenn guddi ndax ñi yenn saa ngi gis mbokk moo xam ne daanaka géntam gi mën nga cee def presque waxtu ak gént képp danga ciy def waxtu ndax daanaka gént gi daanaka dina ci war àddina ba daj yooyu it xeeti mbir la yoo xam ne day gaar nit ñi te borom jàpp ne gént la te du gént loolu daanaka adxaaful axlaam la rek am na ci ñoo xam ne bu dee reer yu neex la reer yu neex leen koy def ci yenn gaa yi am na ci ñoo xam nag automatiquement seen xel xadiisu si lay doon rek mooy lu nekk seen xel ñu koy waxtaanee di ko xalaat bëri na ci euh, ñu njëkk a leeral gént gi nga xam ne day lancer message ci dundu nit ki pour mu nekk lu mu war a bàyyi xel du gudd xaqiiqatan gént dëggantaan bi nga xam ne lancer na message ci nit ki lu gàtt lay doon am na ñoo xam ne dañ lay envoyé vocal dix minutes ci gént gént gént goo xam ne gént guddi dañ ko gént laa <laughs> ilaha illallah nga xam ne loolu moom doo xam ne muy tekki ndax gént gi danaan la yéeg naa ci terrasse bi wàcc ma fa jógee dem ci marché ba ma fa jógee teg ak sama xarit ma fa jugee dem sama benn kër mbokk ma fa jugee ànd naa ak sama benn waa joo xam ne da tukki ma fa jógee xam nga loolu moom daanaka du gént loolu moom ku xam ku xam histoire xam ne loolu du gént ndax loolu mbir la moo xam ne nit ki. doon bàyyi xel la wala nekkul loo xam ne day signifie daal ci mbir nit ki ndax gént gi transe bi moo bari te ñu ci bari tamit ni ko gént dañ koy bëggee nga nettal leen ko nga nga tekkee noonu gént gi maanaam kër gi mu jaar gis fa benn benn xaritam lan lay kër gi tekki ba noppi xaritam lan la doon ci gént gi te mel ni lool it day day gaar ñenn ci ci mbokk yi nga xam dañuy faral di gént lool it pour ñu bàyyi xel loolu du gént gént goo xam ne day lancer message du yàgg ci misaal nit ki da koy da koy da koy jàpp moo tax gis mbokk yoo xam yenn saa dañuy gént ban génteeg léegi presque mën na fanweer at saa bu seen xel demee ñu mën koo wax te duñ ci duñ ci wàññi dara te liñ gént doo ci génn guddi day nekk loo xam day mën day day dëppoo ci misaal day nekk lu dëppoo waaye gént goo xam ne yi ci ëpp dafa safaanoo loolu mënta nekk te ñu bari def leen i gaar ci misaal nga gént yeeg oto. jegewaat fa dugg ci biir géej gi génnaat fa yéeg ci kaw garab gi génnaat fa yéeg ci kaw montagne nga xam ne yi nga yi ànd ci gént gi dafa nekk loo xam ne dafa dafa àndu bu dul gént àndu nu mu ñàkk àndee ci gént noonu la ñàkk àndee ci mën a tegtale ni gént googu dana am lu muy def taasir jeexital ci nit ki moo tax loolu si xel nit ki lay jàpp ba mu ko ba mu mën koo wax wax joo xam ne alaakulli xaalin day jàpp ne moom gént la fekk na gént Euh, bi ci desaat da ngay gis koo xam ne ci ñenn ñi am na ci mbokk yi jëkkëram du nekk Sénégal wala jëkkëram day gëj a di gisee jëkkëram du topp di ci xalaat di ci bàyyi xel kañ lay ñëw kooku automatiquement su tëddee day tëdd gént mel ni jëkkëram dafa ñëw te fekk na jëkkëram ñëw ñëwgut fekk na xelam moo jàpp loolu ci guddi gi ñu indil ko image bi mu jàpp ne gént la fekk na du gént alaakulli xaal loolu day dal ñenn ci mbokk yi bi ci desaat koo xam da ngay liggéey ci wàllu marché yi. yow daanaka ci marché ci ngay yendu sa sa dund gi lépp ci dund gi daanaka ci marché nga koy def eh, daanaka soo jugee marché mi sam xel mu ngi ci marché bi automatiquement pour nga tëdd gént di nekk ci marché bi di dugg ko gént day yomb ndax parce que li nekk image bi nga yendoo def day day def jeexital ci nit ki ba am xelam jàpp ko bu du bu guddee woon ko image ci beneen anam mu sonal mu jàpp ne loolu ak géntam la fekk na du gént bi ci toppaat mm, gént goo xam ne day teg tegtale dara automatiquement dama ci misaal bi gën a yomb mooy nit koo xam ne daa déposé pour tukki di ñaan yàlla pour mu may ko mu gént dem ci ambassade bi ñu jox ko ay kayitam mu gént jël avion dem tukki ko gént la goo xam ne dafa dëppoo lool ndax parce que li muy sàkku ak li gént gi tegtale dafa nekk loo xam dafa correspondant mooy dafa nekk loo dafa dëppoo léegi dëppoo gi mu dëppoo day tegtale ne mbir yi am na lu muy tegtale ci moom mooy ak tukkeem ci misaal lu muy sàkk lu mën a sotti la waaye dina am ak négandiku ndax ni yombee noonu ci wàllu gént dina tegtale ak yéex wala négandiku goo xam ne mën na ko am ala lu mat di bàyyi xel ci eh, koo xam ne mm, da ngay da doon lan lay ñaanal ci wàllu saafara ngay sangu nga gént automatiquement. di seddelé ay ñam wala di gënt gis fu ni seddelé lool dañ lay tektal ni ci mi dal bu doon wërsëg ngay sakku wërsëg ku nit ku bari wërsëg nga waye li la téye bokk na ci gàllankoor yi moy walu sarax faw nga togg ay xéewal sarax ko gëntam li liy tegtale dara la ndax parce que lim sango ak lim gënt dafa deppoo ndax parce que mu ngi sakku lu aju ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg gëntam day nekk lu yomba firi day nekk lo xam dang koy mëna jox tax biir boo xam ne day dëppoog la gént gi di tegtale euh, bokk ak koo xam ne daanaka ci biir gént gi naaw na ci asamaan si jugee fa dem France jugee fa dem Allemagne jugee fa dem Tamba jugee fa dem Kidira jugee fa dugg ci bato bi nga xam ne moom daanaka gént gi yëpp fu ne dem na fa loolu it am xelum boroom moo xam ne mu ngi ci ay mbir yoo xam ne fu ne mu bëgg faa jaar lolit genti gént gi danay tektale ne genta man na baña doon loo luy am solo la ci ci nim ko jappé moy nekkul lo xam day am solo mbir mo xamne war na cee sonni yenn sonni yi day gar yenn mbokk yi ba tey day gar ñenn ñi eh, ci ñoo xam ne lu aju ci xalé jigen ak lenn ci xalé goor ndax ñom ku leen xam daanaka seen diggante yi eh, dañuy waxtaan lu bari di bari lu ñuy gisé automatiquement ko ko xam da ngay ak mom lu bari pour nga gënt ka da yomb ndax nit ki lim nekk di di ci yëngu di ci nekk di ci nekk mënta dund ba ba faatu wala mu nekk ci lu bari te du ko faral di génn mais dégg ko naan waaw sama xarit sama copain démb daf ma seeti wala ki may waaj a takk daf maa seeti woon damaa génn toog ak moom di waxtaan waaw da toog moom di wax parce que li ngeen di waxtaan li ngeen di saafoonte dafa bëri yow nag ci biir gént gi da ngay jàpp ne lii ci biir naa da jàpp ne lii kat ak gént la goo xam ne am na lu muy suñu fee fekk na alaakulli xaalin loolu nekkul loo xam ne luy tegtala lu am solo la ci wàllu gént gént goo xam ne euh, tegtalam dafa nekk message du mat yenn yenn minutes yi ci misaal ni ma ko waxee sànq dangay gis ko am day jël 4 minutes wala 5 minutes wala 10 minutes pour di la ko def benn vocal pour nga traduire ko gént gi loolu dinañ ci bàyyi loolu xel ñi nga xam ne jëlaguñ numéro yi hmm, koo xam ne da ngay bëgg ku la gént dafa am luñ ciy fay ndax dafa bëri ñoo xam dañu ciy sonal naan waaw dangaa waxoon ko am gént waa ko am gént kay waaye ko am gént da fay ndax parce que gént gi nga bëgg ko firil yaa am am loo ci bëgg a xam te ki nga koy laaj moom nga xam ko ñaa koo xam daanaka amuloo ko benn intérêt yow la amal intérêt kon su nee la da nga loo ci war a joxe ke da nga ko ci war a joxe ala kulli xaal day nekk loo xam ne lu maa ndax mbokki dañu ciy sonal lool message yi bëri na ci téléphone bi mënuñoo tontu ñëpp te am na ñoo xam ne amul benn benn xalaat pour jàpp ne kii may yónnee vocal man dong yoruma numéro dangay toog gis vocal yoo xam ne danga naan lii kañ nga ko la riir nit koo xam ne day toog yónnee lu tolloog parce que tolloog cinq vocal yoo xam ne benn bu ne quatre minutes la nga bëgg a toog di ko déglu ba mu àgg nga bëgg a toog di ko traduire loolu nit koo xam te yow ko la yor sa numéro moo ko man waaye nit koo xam ne ñu baree danoo yor ay numéro yow yow si yoroon numéro am ni nga ko soxlaa ko ñeneen soxlaa mu am leen lu ko war nga bëgg mu jël temps yow def ko ci yow kenn loolu mënta nekk dañ ko bàyyiloo xel am na ci ñu bëri ñoo xam ne fi ñu doon ni vocal yi bëri yónnee nañ ko loolu mënuñu gun koo tontu ndax parce que te bi ci laat soo na leen fay leen duñ nangoo fay loolu beneen problème boo xam da ci am koo xam ne nit ki dafa teg programme di liggéey waxut ñaanut kenn def ni man lii laay liggéey li muy liggéey kay sañ na ko boo ko manee mën nga ko boo ko mënu kay ba ko mu dem nga dem waaye nga bëgg indi sa ay vocal say vocal yoo xam ne kenn xamut gi gudd gi mu gudd ak temps bi ñu mën a jëlal ñu toog di la ko traduiral baat par baat loolu amee ameewul noonu jot alaakulli xaal lenn ci mbokk yi dañ koy faral def waaye pour ñu bàyyi ci xel ne baax loolu nekkul loo xam ne lii doxal liggéey loolu da yàq liggéey bi ndax ñun ñëpp ñoo bokk liggéey waaye faw ñu defar ko waaye bu ko ñenn ñi bëgg a salfaañ dañuy lànk ndax bul jàpp ne yow danga yaaru sa numéro wala yow kese lañ yow kese la ñuy laaj chaque jour boo xëyee danga am ay ay numéro yu bëri yoo xam ne doo xam sa fa leen jële loolu lu mat di bàyyi xel kon bokk na ci jafe yi nga xam nit ñi dañ koy faral di jànkonte ci wàllu firi gént yi euh, ala kulli ba tey ci misaal bëri na ci lu muy dal jigéen ñi jigéen joo xam ne day nekk ci néegu sëy di sëy di ñaan lu ci wàllu am doom di lijjanti di bëgg doom di ci xalaat di ci bàyyi xel moom it day tëdd lu bari di gént naa damaa gént di am doom